bon je pense que content, hein, parce que bi 3, je pense que bi est 4 quatrième finale nuit finale en U20 bi 4 quatrième fois nuit finale en U20 que voilà perte nañ trois trois finales en 2019. joué naa final bi ñu demoon Niger perte contre Mali waaw voilà je me suis dit que nag euh, bii beneen la boo xamante ne opportunité la pour man man pour ma nekk premier euh, euh, ñi nga xamante ne ni bokk si ñi njëkk a indi trophée CAN U20 ci Sénégal te yàlla defal nañu ko dañ ko koy santé bu baax di wax ni tamit waa Sénégal tamit kontaan nañ ci ñoom gis nañu message yi ak ñaan yëpp waaw kontaan nañ ci bu baax a baax loolu yaakaar naa ko ñun course loolu course bee ko def ci même avant 4, fois avant nous euh, 6 matchs, je pense. On a marqué 15, 8, 0 question aussi non la 15 bi marqué deux deux encaissés waaw yakarna nak lolu coach bi yàgg na def ci ñun surtout défensivement bi waaw ñëpp a joxe pour xam nga gars yi bañ a yegg si défense bi lolu mom coach bi moko def ci ñun té ñu ngi koy remercier bu baax baax victoire bi tamit maa ngi koy wax au nom au nom de tous les joueurs bon waaw ñun ñoo may nañ dañ ko fubal pour coach parce que daf ko mériter voilà dañ koy sant man xam naa qualité yi nekk ci man su ma ko exploité yàlla dina def li nga xamante ne mooy li gën voilà te yàlla def na li nga xamante ne mooy li